dem dabiwaat Mamadou Masina ndax jóge woon na segu bàndankoro gannaaw ba mu waxantee ak jibi seexu ne ko nag maa ngi delluwaat Gédé Masina ndey ak baay laa am su ma demee tàggu leen suñu nanguwul ma ñëw nga soog maa may mari laa ndax ñaañu tëë mën a ànd départ na nag ma nga jógee Gédé ma nga jógee segu bàndankoro dawal nag aw fasam wut siwaat nag Masina muy fii mu dëkk ba muy agsi di tàkkusaani suuf daje nag baayam bookar marché na julli woon ca jàkka ja bokk ab deram nag yor kurusam doon ñibbi dafa julli ji woon tàkkusaan Moodu marché na dawal ba agsi na cëpp wàcc fas wi daal di jox baayam ñaari loxo baay bi siggi xool ko muy Moodu Modou mas na na koo bàyyi sama baay ji bi Seexu nuyu na la baay bi dafa tiit ba sa jaada gi mu yoroon dafa wadd kurus gi wadd baay bi téye bopp bi yegg suuf daal ne ko ndaxam waaye Mamadou maas na sa fan wi narta gudd Mamadou maat na nii ma la woon bul dem segu bàndankoro Mamadou maat na ko waa baay li man la ne sama baay ji bi seexu nuyu na la moo tax nga tiit ba sa jaade gi wadd sa course gi wadd xanaa xamoo ne sama baay jibi bi seexu nit dong la baay bi ne ñokket fi mu toogoon dem fori kurus ga forat sa jaada ba lem bokk na ko na mu def mbaa tawatul moo du ne ko déedéet baay bi wëlbatiku di dem moo ne ko waaw baay baay bi taxawaat geesu mu ne ko baay sama baay ji bi seexu dafa am doom bu jigéen bu tudd Mari laa baay bi na ko dégg laa ci am doomi buur la baadoolo du ko denc baadoola du ko teg bët daldi wëlbatikuwaat bëgg a dem Moodu ne ko bàyyi baay bi dellu taxawaat Moodu ne ko bàyyi sama baay ji seexu dafa am doom bu jigéen bu tudd mari la te man moom laa bëgg jabar baay bi ne ko mari soo ko bëggee jabar fooguma nga xam jabar ci àdduna ndeman man maay sa baay te du ma dem du ma yónnee ne ko baay soo ma ñaanalewul mari laa dinaa sox sama fetal gi ba mu fees ma sex ko téq ko bal yi jaar sama digg bopp ma ñibbi àllaaxira moo ma gënal mat góor xam ñaar fukki at benn gis ki ma bëgg na la moom laa bëgg nga dooma ko ñaanale tey te ngay sama baay baay bi ne ko ndokk xarul dee ma ñàkk waaye duma la ñaanali mari laa doomi ji bi seexu ji sa doomi bàjjen yii ci dëkk bi wala sa doomi nijaay yii ci dëkk bi wala dëkkandoo yii ci dëkk bi nga seet ci koo bëgg doom ma ñaanali la ko te nga tëral doomi jibi seexu ji doomi buur kat baadool du ko denc ndax jigéen kër gu muy sëy dana fa tooñ benn yoon la fay tooñ nga dóor ko baayam dikk lakk dëkk bi rey nit ñi te kenn bi ci man dara tëralal doomi jibi seexu ji te nga seet keneen mu du maas na ko bàyyi yaa ngi mel ni ku jël pepp di ko ji ciw xeer man li ngay wax bàyyi dégguma ko man mari laa rek laa bëgg ci àdduna bàyyi rek ma sox sama fetal gi su feesee ma seex ko téeq ko bal jaar sama bopp ma ñibbi àllaaxira man bëgguma kenn ku dul mari laa bàyyi rek su ma noppee xaru dee daal di commencé nag wal walbati jël fetal gi teg jël ndañ li teg ci suuf daal di ki nag ngisa si nga xam ne moo di poudre bi jël poudre bi def ci biir solom bi jël tuppi bi def ci jël bàkkate bi daaj ba mu dëgër mu jël bal yi def ci daal jël na capsule bi teg ci semine bi baay bi geesu ne ko Modou Massi ne loo nar mu ne ko xaru dee baay bi daal dëgg tànk dëgg dikk téye ci fetal bi ne ko Modou Massi na nanu xaru nanu waxtaan bala ngay xaru dee may ñàkk ndax yow laa xam ci àdduna sa yaayit yow rek la xam ci àdduna nanu waxtaan su fekkee xam nga fit wu toll ni dem ñaani sa baay ji bi seexul jabar nga dem ñaani ko soo ko indee ci kër gi dinaa ko fat waaye man mii sa baay man moo ma fitu dem si ko bànnam koro di ñaani sa baay ji bi seexul jabar Modou mas na ree na ko bàyyi man xam naa fit wopp woowu mu ne ko soo ko xamee kay demal moom dimanche daal fay jógee nag wa mat fas wi ànd ak baayam jiit leen mu dugg ci kër gi jël fas wi ñu yóbbu ci wudd ba yeew ko dikk fekk yaay ji fi muy mooñee ci buntu waañ wi mu ne ko yaay tàggu naa sama baay damaa bëgg a ñaani sama baay ji bi seexu yaay ji ne ko li ngeen doon wax lépp sama noppi ngeen ko sol mu du yaa dëgër bopp sa baay kay baay wut ma dégg sa baay lim la wax doom ju ñaani jabar bàyyam na ko duma dem duma yónni nga sama baay bàyyi na ma sa baay kay bàyyi wut la ne ko yaa xanaa déggoo sama baay lim wax nee na ma soo xama su ma xamee fi mu toll ñaani sama baay ji bi seexu jabar naa dem su ma koy xindee dina ko far te man yaay xam naa fi wópp woowu daal na ñoo ko dugg néegam summeeku dem sangu ji dellu siwaat ñoo fanaan asamaan seet mu xëy dem wut ñaari kilo yu daal di yeewi aw fa aw fasam waajal ko ba mu waaj mu jël teg gi jël mux rek jiital jël délé bi jiital jël teg gi teg dal tay ba mu baax mu jël jaas yi di yankee baam ji raf bañ teg daal jël mbaxanam juma juma mbaay mu daan baaxoo dëppoo mu dëppoo taxaw buntu neeg baayam nuyoog baayam taxaw buntu neeg yaayam nuyoog yaayam ne leen maa ngi dem ñaani sama baaji bi seexu jabar daal di war fas wi nag tëbal ko laataa ñu doon ko xalaat di ko yeb moo du génn pénc mu di ko dawal nag ba siwaat sigu bànnam koro daal di wàcc fas wi nag ci buntu saalab jibi seexu bi dégg na xalami jibi seexu buur yaa ngi koy góor yaa ngi koy xalamal mu daal di fëgg bunt bi jibi seexu daj i doon xalam ne ko bàyyi jibi am na ko fëgg bunt bi mën a xubbile ma xool ba xam kan la ñu nekkaat ci muy moodu maasina mu dëkk yëkkati ñaari kuréy kuréy teg ci loxol jibi ne ko bàyyi jibi seexu sa doom ji de mari laa laa lay ñaan si jibi seexu far ay loxoom di xool ba yàgg mu seen géwél bi nga xam ne moo sës mooy conseiller ne ko demal nga woole ma Marila mu dikk nag fekk Marila ci saalam ni ko Marila kaay wuy sa baay Marila jóg ànd ak ñaari dunguru naka la xaq si baayam ne ko Marila mu ne ko naam baay mu ne ko moom remaas naa ngi nii yaa ko tax a jóg ne dalaa bëgg a jabar ma lay laaj ndax bëgg nga Marila ne ko baay man Mamadou Mass rek laa bëgg ci àdduna bu dul Mamadou Mass na bëgguma kenn baay bi fottu su jaraaf jaraaf jël guro gi koy xar ñu maye Mariela ci biir salle bi Modou Mas naa ngi jonkan rek ñu xar gura gi séddale yëmb ci biti séddale dellu siwaat ci biir séddale ba gura gi mat Mariela ngi jonkan fi mu jonkan rek ba yàgg mu jóg taxaw ne ko bàyyi ji bi laaj ma li ngay laaj ci can ma jox la ko bala may dem ndax man ngoro xaw ma dama ko dellu siwaat te su may dem dama yóbbaale Marila kon wax ma lu ma lay jox Ibou Cheikh ne ko laajuma dara sa jabaram googu Modou Massa ne ko Marila mu ne ko naam mu ne ko tàggul sa baay tàggu waa saal bi te dem waaj Marila daal di jóg nag dugg néegam jël nag ay yéreem ñëw tàggu baayam baayam ñaanal ko mu tàggu nag waa saal bi Marila jibi nguufaan ko. ah euh, Modou Mas na woofaan ko teg ko ci kaw fas wi daal tëbal nag fas wi wut si waat nag gédee marché na dëkk bu mu romb rek ñoo ña fàq topp ñu la ñu ne mari la Mas na togg na laa ci fas ñu ko mos a gis ñëpp di ko séentu dëkk bu mu romb rek ñoo ña fàq topp ko mu di ko dawal nag ba xaar si nag gédee marché na kër baayam daal dugg na ci kër gi wàcc nag mari laa génn nag basang yoon ci dëkk bi yëpp lal ko jël mari laa tàcc waa dëkk bi génn si di nuyoo si mari laa nga seen ñuy ko basaatee ku nekk di xool mari laa am na dañoo dañuy xool ba motuñoo ñëpp ndax di xool mari taar bi nekk ci mari laa xeesaay bi ci nekk ndax bàyyam dafa xees mari laa xees teg ci itam yor yàpp garub liir ma mari laa ndax naaj mosu koo tiim dafa xees ba weex bët yi weex tàll mu di ko xool di ko yéem waa dëkk bi yëpp ko nuyoo si toog ku ne wax ko moromam ñu di ko toogaam lu war a man ñetti wax moo du ma si nañ yóbbu na fas wa yeewu na ko sangu na dugg na néeg ndeyam wax ak ndeyam dugg néeg baayam wax ak baayam nuyu na dëkkandoo nag daal dikk nag jël nag mban su gàtt teg ci wetu nag basang yi daal ne nag yéen waa dëkk bi damaa bëggoon a waxtaan ak yéen bala ngeen a tasaaroo ndax xay nit su ngeen naree dëkk na ngeen di waxtaan ma leen di xamal na leen mari laa ngi nii sama jabar ji sëy si dinaa ko ganalee nag bët bu seet naa ko rel ñetti nag ba muy weer di juróom-ñeent fukki nag loolu doon xamal dëkk bi nag bu fi ciin tàkk maa yore dépasse yi dëkk bi ba ñetti weer yi mat ba weer yu mat man ngeen a yewee ko dëkk bi nag yewee ko coow li jàpp koo jàpp suuf ñaar ñoo seen ñu ngi taxaw ñu ngi waxtaan lu ñuy waxtaane ñu ne Mamadou Mass na dafa jëkkee ak njàmbaar bëgg ma juntal ci ci ragal ñu ne waaw ndax takk doomi jibi seexu li di mari laa warul tax mu di ko gànnalee bët bu seet mu di ko reel ñetti nag di weer di fan fan ci weer yi di juróom ñeent fukki nag ci weer wi te jigéen ñi sëy ci dëkk bi sax kenn réelu leen béy bu baax moom kay bu ñemoon gorom bi jibi seexu du reyal sax doom ji ginaar ñu noom ke da koo ragal du Mas na dégg wax ji daal di waat waa dëkk ne yéen dégg li ngeen wax da ngeen ne man dama ragal sama goro jibi moo tax may ganale doom ji ba du si ñetti nag di juróom ñeent fukki nag ci weer wi ngeen ne jigéen ñi sëy ci dëkk bi sax kenn réelu leen bay bu baax kon waru moon a reyal laa ginaar ndegam ñi mën naa jibi seexu man damaa def li li may def xam ngeen ko xam xamu leen ko daf di jigéen boo ko jëlee kër ndeyam ak kër baayam sagaloo ko ma mi sàngoo sax ba la ko laajee nga ko aw ma ko su ëllëgee mbedd moo ko aay da ko fa séen moo tax bëgg a sagal mari laa teral ko su ëllëgee mbedd moo ko ne bul bul fa jaar su fa jaaree dinaa ko rendi ba dog suuf ñaari mètre ngeen xam ne ma ragal lu ma ji bis yoo xam baayam dëkk bi nag wernte jàppat ko jàppat su ñu ne lii mu wax de bis bu ko defee musiba dina am ñu ne lu ma saa wax ko de moom ba léegi si ñu teg ca weer ngan nga jeex mu dajale waa nag waa dëkk ba ne dama am waxtaan ak yéen waaye sunu mbokk yi waxtaan woowu Mamadou Mass na bëgg waxtaan waa dëkk